Moustapha ab nappkat la bu ñàkk lool benn bés mu jaaxle ndax ak njabootam amul lu ñu lekk tey mu génn ngir wuti lum leen dundalee ci bés bi ca yoon wa Moustapha daje na ak góor gu baax lool ni ko góor gi man de ab nappkat la bu ñàkk lool tey da jaaxle ma génne ngir maag sama njaboot góor ga ni ko kaañ ànd ba ca géej ga ma wax la ban demee góor ga ni ko da ngay julli ñaari rakka nga jang alquran lo ci man nga wax bismillah sanni sak mbal yalla ko bax la mustafa def na la ko ga wax daal wax bismillah sanni ak mbalam bam sanne mbal ga yalla dogal mu japp jeen wu mak lol gor ga niko da ngay jaay jeen wi lo ci am nga dundal sak njabot yalla ko bax la mustafa jaay na jeen wa jeen ci ñaari benn bi def ndawal benn bi def lu mën a lekk mook njabootam ca yoon wa Moustapha daje na ak benn soxna ak doomam ñoom it ñu jaaxle lool ngir ñàkk lu ñu lekk jàmbat ko Moustapha Moustapha ni man de li ma yor de sama njaboot rekk laa ko jëndal naka lay def ndax dama koy jox soxna si wala dama koy yóbbu Moustapha siggi xool soxna si nekk soxna saa ngi jooy ak rangooñ yu bari lool mustafaa yërëm soxna si jël ñaari palaat ya jox ko ca saasa soxna sa xar kanam gi soppi ko mu kontaan lool naka noonu doom ja it bég lool di reetaan Moustapha dem aw yoonam jàpp ci yàlla waaye ànd ak jaaxle lool ci yoon yi Moustapha daje na ak genn góor mu naan maa ngi wër Moustapha nappkat bi Moustapha ni ko góor gi man de Moustapha laa tudd te ab nappkat laa góor ga ni ko man de dama ameeloon sa way jur wu góor alal ju bari lool ba di ko wër lu yàgg ba dégg naa ñu ne génn na àdduna comme dajé nak yow nak alhamdulillah dama lay jox alal ji mi ngi ni mustafa jël ko lol mu don alal ju bari lolo soppi mustafa ba mujji mu don borom alal ju bari am ay kër yu bari tambali di saraxé bés bu jot lu mat jouné sarax yi bari na lol lolou yem mustafa ba fum tok toog da koy waxtaanee waaye benn bés na lu yéeme lol mu dafa nek yowmal qiyam ga moy dañoo teg benn balance ni ana Moustapha kaay ñu àtte say jëf mustafaa ñëw taxaw ñu jël ay jëfam yu baax teg jël jëfam yu ñaaw teg jëf yu ñaaw ya gën a bari yu baax ya jëf yu ñaaw ya ëpp doole Moustapha tiit lool ni waaw ana sama alal ji ma daan saraxe bari woon na lool ñu xool nekk alal ja yépp da ko doon joxe daan ci gis boppam daan ci yéemu mu doon mujj ay xob kese lépp woyaf jëfam yu ñaaw gën wàccaat ba gën a bari Moustapha tiit lool waaye mu dégg benn kàddu ñu naan ana lan moo dese Moustapha ndax am na lu des ñu ne aha kay am na lu des ñu ne lan moo des ñu ne am na palaat yu mu joxe woon ngir yàlla benn soxna ñu jël palaat ya teg ca balansu yiw ya balansu yiw ba gën a bari wàcc ba tolloog jëf yu ñaaw ya waaye Moustapha gën tiit ndax lii rekk doyut ñu ne ndax am na lu des ñu ne aha kay am na lu des kay mustafa ni waaw lan moo des ñu ne ah am na soxna sudan joy jooy ca àdduna mu feral ay rangooñam ca ñaari palaat yooya loola dañ koy soppi yiw ñu jël rangooñu soxna sa teg ca balance yiw ba mu doon lu diis lool wàccee balance yiw ba mu gën bari ñu ne ndax am na lu des ñu ne aha kay xale ba kontaanoon ca lekk ga kontaan googa dañ koy def ci balance yiwam ñu teg ca mu gën a diis ba wàcc lool mu dégg kàddu ñu ni Moustapha sa jëf yu baax gën naa bari yu ñaaw ya kon dangay texe ca la Moustapha yeewoo nettali ko góor ga góor ga ni ko lépp loo mën a joxe ci àdduna ak lu mu bari bari bari bari bari su yàlla taxut wala nga gis sa bopp wala nga yéemu ci rek sunu borom da koy soppi ay xob ba mu woyof lool loola jariñ dara ëllëg yowmal qiyaamati waye lo meuna joxe ak lu mu ndaw ndaw ndaw ngir yalla yalla dongu tax yalla da koy disal bam dis lol yowmal qiyam day ko lu bari man na la jariñ ba tax nga tàbbi aljanna bokki jullit yonnati ba alayhi salatu wassalam neena kenn ku ci nek li nga don saraxe fi ci aduna te yalla dongu tax day ko ak ker nga di ca keru ëllëg yowmal qiyam ba yalla di atte jami kon lu waay di joxe ak lu mu ndaw ndaw ndaw na yàlla tax ndax mooy jëriñ yowmal qiyaama waaye lu waay joxe ak lu mu bari bari bari su yàlla taxul du ko mat ndax du la jëriñ dara yowmal qiyaama